waaw. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. kii kan la moom. xabaar grand bi. Moïse Ambroise Gomis. Mhm. ok. moom il fut présentateur à la RTS. moom ah mooy def affaire bi Miss Sénégal yooyu. voilà voilà. mais man Aziz Aziz Samb laa gën a xam. waaw y'avait amoon na Aziz. Mhm. mais kii mooy Moïse Ambroise. ndeysaan moom kii présenté à la lan ko yàlla yàlla lan ko yàlla yàlla encore Marie non moom elle me lay mais waaye damaa xam depuis ce matin bu ah lan laa koy wax. ko mari bu wootee rek xaalis lay laaj. jël sa peut être danaa soxla pour leneen. elle me lay mais quoi xoolal su fekkee da ko ko ma chérie ça va eh namu naa la de yaa ci Ah, elle, mais elle va bien. Enfin, elle est bien. Ok. On des sango. Hmm. Ok. Mira, ma chérie, yéen fàtte ngeen de. Sonal ngeen ñu trop. Yéen xamu leen fin de mois. Ak leneen. Yéen tout temps, chaque jour que j'ai fait. Am ngeen soxla. Ñun dañoo ñun dañoo sonn wutil liggéey fii si kër gi day def cinquante ma def cinquante wutil liggéey fu mu toll nii jamono ji daa metti bu dul yow di sa ah yow tamit wutil leen liggéey eh am wax nag moom d'ailleurs li ma doon wax yëpp mi ngi koy dégg wutil liggéey moo gën fu mu toll nii nag kenn mayatul yéen sonal ngeen seen frère à chaque fois c'est la même chose dañoo sonn ñun man d'ailleurs man samay besoin man dama koy teg ci suuf ngir jàppale ko te yéen jàppale ko benn yoon. ah yëpp tamit nag am sama kër dañoo soof trop ah, dañoo sonn allo waa Marie <laughs> naka mu ça va naka xale yi bisoog abi waa an sama waa ji laay <laughs> jóg ne ko maa ngi xaar sama baraamaan bi aha waaw mhm, mhm. ok waaw mais seulement que du nek tay xam naa yow na la revenir d'ici demain wala plus tard après demain D'accord. accord mhm. ok D'accord. accord waaw yow déglu ma rek na la wo demain waaw incha allez merci beaucoup nuyu ma xale merci <laughs> waaw mais Anne yow danga def wala la yow ni nga waxee Marie mais qui elle est dans ses droits c'est ma sœur bu ko neex am problème boo càmmiñam comment à chaque fois sa waa dañoo fàtte bu dul moom di sa ndey. waaw mais tu l'as fait jour que Dieu fait ñun mënuñoo dëkkee ci ne gis nga li ma doon ma doon def ci kër gi dootuma ko defati dama koy jël jox ko sama yaay. gis nga ci kër gi da ngay def li nga daan def yëpp. mu jeex léegi bu la neexee. li ma la doon may dootuma la. bu la neexee ñoom daal dañoo bëgg man li ma li ma bàyyi mu sedd ñoom ñu jël ko du fii. en tout cas jéeg buy sëy jigéen bu baax booy sëy da ngay am technique de suñu sëy gis nga yaayu jëkkër euh, jarbaatu jëkkër ndeyu jëkkër ñëpp dañoo bokk si sëy bi mais man mari kan nga ko gisal man maay frère am suñ papa teel a gaañ am na droit nekk si ay problème woo man bañu wutal jëkkër wutal ko liggéey waa léegi wutal ko liggéey jox ko benn somme mu liggéey ci mais ni nga waxee moom ah ne wax mi dafa ñaaw léegi dañ fi ñuy toog la ñuy toog naan non Moussa bañul dara mais jabar ji moo bon loolu sama yoon new ci yow xam nga ma bu baax yow li ma bàyyi mu sedd moo bëri